li may daaneele nag mooy li ma lay wax ne la gis naa ko léegi ci suba. mooy ni euh, dama liir fen ñu ni le président Ousmane Sonko dajale na. parti ba waxtaan nañu ba euh, fas na yéene sax def tournée. boo xam ni ma nga jëm ca pays AES yi. Mm-hmm. muy Burkina Faso. Mali muy Mali. muy Guinée. Mm-hmm. ak Niger. ñuy wax rek nii di attirer attention sénégalais yi ci benn affaire. j'ai l'impression qu'un bras de fer est en train de de s'installer entre le Premier ministre et le président de la République avec un président de la République qui a la volonté de maintenir le Sénégal dans son truc normal nga xam ne moom la xam état ni mu koy defalee même su fekkee mi ngi def ay erreurs ñu koy rectifier mais xam na ni y a des acquis et il faut s'appuyer sur ces acquis pour avancer et quelqu'un boo xam ne moom il un calendrier caché de de vue il a un calendrier caché aujourd'hui il est en train de contribuer su fekkee ni dafa topp situation ñooñu bu leen toppee le Sénégal va se désagréger et loolu désagré loolu lu muy indi conséquence xam nga mooy lan mm. mooy fragilisation de l'État du Sénégal et toutes toutes les voies pour son euh, sont son sont sont ouvertes pour dugal Sénégal ci kamb ay scission fi may waxee xam naa ni ñu am xel junj doy na borom xel booy seet Diomaye boo koy analyser Diomaye il n'a pas d'inhibition identitaire mmh. ou d'inhibition euh, irrédentiste mm-hmm. c'est un Sénégalais bon teint mm-hmm. boo xam ni amul benn problème ak l'état du Sénégal ni mu mm, mel nii mm-hmm. mais il faut faire très attention parce que dugg ci ay logique gu ay AES wala ay affaires deme noonu mën na indi problème amagul nag dañuy avertir dañuy tirer sur la sonnette d'alarme il faut que les Sénégalais restent vigilants loolu laay wax aussi ci ndono yu mag ñi aussi. loolu lay ñu ñun ci organisation boobu ñu bokk loolu laay wax toujours peut-être que le président Diomaye est en train de rectifier beaucoup de choses. en allant vers les cités religieuses. en promettant de de de continuer l'œuvre du président Macky Sall dans ce sens parce que c'est réconcilier l'État grégorien avec la religion les religions n'est-ce pas muy xam ni catholique la wala jullit la parce que tamit les Sénégalais se retrouvent majoritairement ci këru diine moo xam catholique lañu moo xam jullit lañu. tijaan lañu murit lañu xaadir lañu. ce qui ce que nous réunissons au Magal de Touba la Mecque ne la paie pas. Mm-hmm. par année. Mm-hmm. donc le Sénégal est un est boo xam ni particulier et donc man dama gëm ni état bu intelligent ay hommes politiques yu intelligent yu nekk ci réew mi li ñu war a xinte mooy fexe ba ñooñu nga xam ni tey par exemple je l'ai dit ailleurs le le le le général des mourides par son discours il peut entraîner l'ensemble des mourides à, à contribuer à au, à, l'effort de comment dirais-je de de de de d'autosuffisance alimentaire en riz. Tout à fait, Tout à comme fait. on la Covid. Tout à fait. Il il peut il l'a fait souvent. avec Massalikul Jinan, mm-hmm. il l'a fait récemment avec mm-hmm. l'université. Mm-hmm. Serigne Babacar Sy Mansour. Il peut faire la même chose, il peut dire képp ku yaakaar El Hadj Malick, Seydi El Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu. invité na nga def sa ñaq wala sa kii ci canal bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy gas